waaw match bi bon yàlla def na li gën quoi franchement joué nañ bëggoon nañ coupe bi mais ñaari équipe yëpp coupe lañ bëgg yàlla li gën ci doomu aadama rek lay def di ñaanal gaynde yi xam nga prochainement ñu jël coupe bi franchement neexul nag defet la mais boo seetee gaynde yi ñoo ñu gën a bëgg ndam bi waaw ñoom ñii di fubal dëgg la nag neexul mais dañuy continuer di leen encourager di leen may doole waaw di ñaan yàlla rek chaque fois mu def li gën ci ñun parce que ndam mu demee ci ñun waaw lii moo am nag di di rafetlu trop di yàlla def. waaw match bi fii lañ ko seetaanee depuis première match yëpp parce que c'est un frère muy victoire ak défaite fii la ñuy bëggee lépp tey bon demee na noonu ba tey ñu ngi ci gàll bi waaw ñu ngi ci biir kër gi ak defet bi neexul nag mais après day jàll di ko wax ni ñu ngi seen ginnaaw malgré ak défaite bi duñ leen mës a bàyyi. waaw métti na nag xëy na wax yu bëri mais Sénégal lañ am te ñoom ñoo ñu gën a doon ay gaynde ñoom ñu sol may dem yi ñoo ñu gën a bëgg ndam di leen wax ni nag bon métti na mais ñun ak ñoom la ma jeex ba bis bu yàlla di wax ni ki waaw di di def li gën ci ñun ñu àndi coupe bi waaw. waaye suñu souhait mooy maanaam euh, Sénégal andi coupe bi parce que on l'a rêvé depuis fort longtemps et on pensait pas qu'on allait perdre cette finale waaw. Bon, les choses sont passées autrement, donc là, on ne peut rien dire euh, que d'accepter quoi. Le message que je lance à Crépin est de dire euh, c'est la loi du foot, euh, qu'il soit fort et qu'il sache qu'il est jeune. À toute l'équipe, hein. et surtout à Crépin, qu'il sache qu'il est jeune, l'avenir est devant lui. Et il, fera beaucoup de compétitions. c'est la loi du jeu. Et puis c'est sa première compétition. Qu'il sache qu'il y aura beaucoup de compétitions qui vont venir merci. Ah, coach à je lui dis euh, bravo, félicitations à lui. Il est resté un vrai attica en Essamay. Et je lui dis euh, félicitations parce qu'on ne l'attendait pas ici. Mais quand même, avec l'aide de Dieu et l'aide de la population du Sénégal, il est arrivé ici. Donc, franchement, c'est un coach et il mérite vraiment euh, un encouragement. Ah, final, En mais on fait que grâce à Dieu ndax gars yi ñoom joxe nañu jusqu'au bu jusqu'au dernier carré quoi joxe nañu lu ñu mën mooy loolu. Euh, waaw waaw loolu la ñu ñaanoon ah bëgg nañ coupe bi moom ñëw Sénégal quoi pour la première fois ñu am trophée continental mais ba Dieu a décidé ainsi. ah loolu moom dañuy dañaa kontaan trop dañaa kontaan trop on voit que depuis le matin gars yi ñëw gën a si nañu depuis ñu jógee Kandial ñenn ñu jógee Tilène ñu ñëw fii. xam nga bokk si ambiance bi dañu kontaan daal famille bi kontaan nañu trop ñun daal ñu leen di remercier bu baax a baax quoi ndaxte Krépin seen doom la du ñun kese Krépin doom Casamance Sénégal lépp la moo tax dañ siy jàpp. Euh, coach bi kay moom kay def na lu mu mën instant moom xanaa di ko remercier rek waaw parce que ñu ma am ñu feem quoi yóbbu na équipe bi au fu mu war a toll.